jërëjëf soo leen déggee nag doomu yànde ko du seen bi ngeen xam ne nag ñu ngi ci dugg Sinda fii moom beneen affaire la bég nañu lool lool lool lool macha allah waaye suñu waxee développement local gis nga ñuy léegi euh, éléments yi ñu def ci euh, exemple de réussite nee naa bëri na waaye baax na fatabakallah macha allah jeunes yi xam nañu ne mën nañu toog gànjaay réussir gànjaay am na ci kenn euh, Babacar Diagne moom tamit entrepreneur la nañ ma ko joxal micro bi parce que dafay baax tamit xale yi xam ne léegi immigration du réussite nit ñaa ngi jóge bitim réew maanaam jóge France jóge États-Unis fu nekk ñëw ci réew mi investir ci réew mi ci réew loolu yëpp nag projet yooyu yëpp monsieur le maire dinañ ci waxtaan naka la ñuy accompagner jeunesse bi Babacar ñu ngi lay nuyu di la sargal bu baax a baax di la euh, féliciter ci initiative bi nga def jóge bitim réew bàyyi fi yëpp ñëwoo sax Dakar da nga ne gànjaay moo sax gànjaay mooy sama cosaan loolu dañ la ciy félicité jeunes yaa ngi lay déglu sur le plan international jeunes yi nga xamante ne ñu nga ca à travers le monde di la déglu lan galeen leen benn message nga bëgg lancer. Euh, Tata Degene maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu euh, Papa Ndiaye Lo di nuyu monsieur le maire di leen remercier bu baax. jërëjëf. parce que lii nekkul la ñëpp ko mun a am. je pense que ñun bu ñuy liggéey di rey suñu bopp guddeeg bëccëg xaj na lii rek lañ ci am moment ya nga xamante ne de plaisir la. de bonheur parce que yàgg nañ fi. di di liggéey xaj nga kenn lijjantiwuñu kenn toppatoowul lu ñu def. donc bu ñu toogee tey ba TFM jóge fële ak équipe am ñëw fii nii. di wane li ñuy def dañ ci war a sant yàlla. dëgg la donc mënu man nag commencé te gërëmuma monsieur le maire. Mhm. parce que je pense que su ma yaatoo ci dëkk bi moom moo ma yaatal. Mhm. su ma amee courage yu liggéey fii ci dëkk bi tamit yàlla ak moom moo tax. Mhm. te doon na ka nga xamante ne tout le temps may motiver. su méttee moom lay gis. bu neexee tamit day ñëw aussi ma koy gis. daf may accompagner ci moment yu difficile vraiment ba muy métti métti dëgg-dëgg. mun mhm. naa ne gannaaw suma waajur. Mhm. ñoom moom lay moom lay gis. ban message ngay lancer jeunes yi. Euh, jeunes yi lu mu leen di wax tout le temps rek mooy ñu gëm seen bopp. Mhm. parce que bitim réew liggéey moo fa nekk. buñ fa demee tamit dañuy xëy dañuy gont. parce que léegi crise bi bëri na. crise bi bëri na Europe. te mm, demetul noonu xaj na. te je pense que comme ni ma ko waxee. Sénégal ñun ñoo ko mën a liggéey. dëgg la. du coréen bi du japonais bi du du du chinois bi moo ñëw di ñu ko liggéeyal. dëgg la ñun sénégalais yi ñoo ko mën a liggéey. Mhm. pour ñu liggéey ko nag fokk nit ñi jàppalante. dëgg la parce que je pense que kenn rek mënul defar dara. Mhm. je pense que nit ñi bu fekkee ne kenn yëkkati na rek ñëpp jàpp ci dina dem. waaye daal mën nañu toog Gandiaye réussir à Gandiaye. bien sûr xam ne ne que ginnaaw bitim réew léegi moo am crise ñëpp di chômer kon am naa yaakaar ne ku jéem tuuti tuuti toog ci dëkk bi soo poussé di nga dem. bu baax man gëm-gëm googu laa am moo tax ma toog fii. jërëjëf euh, joxal ma kàddu bi ki nga xam ne moo di Katim ture moom tamit caat sa paquet la lii joxal ma Katim ani Katim su fi nekkee wala Bokande moom tamit entrepreneur la ani bokkande moom tamit soxla woon nañ ko fi wala Ousmane Touré ñoom ñëpp dinañ dellu si ci ñoom fa la macha allah waaye caat su fekkente ne ne que ñëw nañu fii. ñuy gis ne ne am na ay jeunes yoo xamante ne ne que jël nañu option waxuma la toog fii sax waaye jóge bitim ndax xale yi ñii ñëpp nii kaw ga la ñuy xalaat pour ñoom suñu football wul wala dem kaw ga duñu réussir mais léegi gis nañu ne crise bi international la da ngay dem France wala fenn gis fa ay tubaab yu weex tàll yoo xam ne ay la lañu di tàllal loxo kon il faut ñu gëm suñu bopp xam na ne béy bi solution la maanaam toog ñu béy toog ñu am ay ouverture ci li nga xamante ne mooy fii nii gànjaay kon yow soo ñëwee gis exemple yu mel ni loo ciy dolli balaa ñu jox kàddu gi monsieur le maire. taa balaa maa ñëw ci loolu dafa amoon lu ma bëgg wax. Mm. yàlla dafa am nu ma bindee xëy na. Mm. dama jël benn étiquette mm. xaw koo collé presque politicien Sénégal yëpp mm. ñu ñëw tey gànjaay mm. wara ware fi mu dem bëri na dem nañ fu ne invité nañu maire bu ne dëgg na ci suñu plateau dëgg na waaye tey ci plateau bi Tata Déguène wax dëgg fa yàlla gisuma politicien mm-hmm. ki ma gis. Mhm. mooy un maire. Mhm. koo xamante ne dafa jël société am jël biir waa Gandiaye nekk seen frère. Mhm. man loolu laa gis je n'ai pas vu de discours préparé. dëgg discours parfait. dëgg la avec des chiffres naturels. voilà dama sentir. naturel boo xamante ne. wax dëgg fa yàlla. pour mu nekk ci homme politique. Mm. jafe na lool. dëgg la bravo Gandiaye ki ngeen tànn. juumu <laughs> leen. voilà juumu leen. <laughs> loolu bëggoon naa ko wax balaa ma ñëw euh, ci jeunes yi tamit am na benn point boo xamante ne bëggoon naa ci intervenir tout à l'heure bi ñuy def historique bi. Mm. parce que dañu ne 96 dañu érigé Gandiaye en commune. Mm. depuis 96 monsieur Guèye mi ngi nekk maire Gandiaye. biñ fi ñëwee ñu ko érigé en commune. Mhm. dafa amoon leneen lu fi nekk. Mhm. muy aada ak cosaan. xëy na ñoom ñoo doon dogal di buum di buumi. Mhm. ñu jël ko def ko. comme beneen administration mm-hmm. Mm-hmm. ñaari administration yooyu déggoo mm-hmm. créer xëy na benn consensus boo xamante ne kenn ku ci nekk dina ci gis boppam culture ci ni ñuy waxee ak éléments yi nga xamante ne seetaan nañ ko on sent vraiment ko culture mu ngi biir gànjaay que dañoo fonk seen aada fonk seen cosaan ñu ne ma tamit nag nekki sant gànjaay Diouf la sant ma kontaan ci loolu ah, ah, parce que Diouf la sant Diouf la <laughs> sant pour revenir aux jeunes nag Tata Degen ah. ça c'est un bel exemple mm-hmm. parce que yombul jógee euh, euh, nekk Europe mm-hmm. ñëpp bëgg dem mm-hmm. yow nga am chance su dem jékki-jékki ne man damay ñibbi si Sénégal liggéey si sama te du toog sax Dakar voilà Gandiaye laa jëm voilà imagine toi rek ñëw ba Gandiaye ne man fii laay liggéey parce que man fii laa gëm Sénégal bu tekkee fee ma gënal kon loolu c'est un bel exemple mmh. surtout pour la jeunesse mmh. parce que tey jii toll nañ foo xamante ni taa déggan suñu sàgganee tuuti mmh. Sénégal euh, pour mu développer dina metti torop parce que kenn bëggatu fi dara parce que kenn amatu fi dara parce que kenn xëy na euh, euh, yaakaaratu fee tekki ñëpp tax ñëpp bëgg dem mais li ñu wane rek day wane ne ay exemple ngi fi et képp koo xamante ne wàllu wi nga nekk gëm nga ko rek di nga ci tekki bu baax il fait bon vivre na taa ah, ah. déggan nag xaaral ma eggal. waaw yeggal am na discothèque. ah, ah Gandiaye am na discothèque. am na discothèque waay zéye neex. Gandiaye am na am na fast food ay restaurant. ah dara manqué wul Gandiaye maa ngi ñëw. ah <laughs> am na yow bàyyi gannaaw bagage nekk Gandiaye bëri na macha allah loolu damay jox eh, Ali Cissé mottalil ma lu am Gandiaye Ali nañ ko jox micro bi tuuti ñu dellu si parce que tey dañu sargal si Gandiaye te baax na ñu xool la amoon démb ak li am tey te pare dafa mel ni pareegu leen Ali Cissé. merci Tata Degene ah. chimère ah. ñu ngi lay dalal jàmm ci dëkk bu tedd bi ñu ngi di dalal suñu nijaay Ndiaye Lo Ndiaye moom tam ci dëkk bi di la ah. wax ne bismillah suñu mag ñaaña Fall di mujj nag ki nga xamante ne mooy caat ak monsieur le maire ndeysaan euh, euh, gànjaay de dëkk jàmm la rek mm-hmm. yàlla mi dara teewul nag mm-hmm. dana damay wax tuuti ci monsieur le maire docteur El Hadji Guèye mm-hmm. moom du politicien dafa bëgg dëkk bi depuis mu doon xale bu ndaw loolu la caat gis am ci yéene bu rafet mm. di tegal xale yi coupe booba monsieur le maire du dara mm. di am yéeneem di ko def ci gànjaay mm. parce que mun naa wax ne li ñuy wax ci réalisation yi mu def nii li muy def ci jumaa yi jàkka yi moo ëpp te kenn yëgu des millions lay def investir ci jumaa yi jàkka yi Alaaji Gaye fal nañ ko maire en 1996 ñu dugg 97 97 98 daf ko jooy ba mu jeex mu sa mun a taxaw wax ci biir mbooloo mm. lan moo waraloon jooyee mooy yéene bi mu am ci gànjaay ak sas biñ ko yéen ndax yàlla dina ko dimbale ba mu mun koo yénnee ko ci digg gànjaay yàlla mi dara teewul jàppale ko mm. alaaji Géey nekk fi mm. dama la ne boo gisee gànjaay fi mu toll nii tey fi mu yegg si fañ ko fekkoon ak fi mu ñëw tey jii c'est diamétralement opposé il fait bon vivre à Gandiaye très bien jërëjëf jërëjëf ma ne nga gis arène arène municipale bi mu def fii waaw arène municipale yéen noo leen def ba am ko ci Sénégal ah, loolu ma jaaxal Ndiaye Ndiaye Dakar lañ koy toppandoo nag. waaw arène municipal benn la benn la dama la ne. <laughs> Ah. ñu ngeeg unité de dessalement boo xam ne. 500 ah. mètres kii bu doo indi par jour mu ngi fii. de dessalement bi dégg naa ko fi. unité de dessalement bi mu ngi fi. Ah. Gandiaye boo demee Fatick amul abattoir Gandiaye am na abattoir. da ngeen am abattoir. abattoir bu moderne. waaw bu sol foofu sa baaraam. kon ma teg sama baaraam maam Kumba parce que balaa ñuy dem fenn ak monsieur le maire. merci soxna Ñaaña xam nga ne ngoyaan dafa xew. te man fi mu nekk du ma ñëw ci dëkku cosaan bi dëkku buur bi fekk fi ndaanaan bu mag di soxla maam Kumba jugal jugal nga woy ndë ndënd yi rek borom ndënd maam Kumba ñëwal ñëwal taxaw fii waaw. asalaamaaleykum. waaw ayca taxawal foofu ayca yooxul taxawal noonu. yaa baa sama waaja baa dokeey. ay ca tama yi jamaano kay jóge si weer nu yu neelay waaye ama ca too jaay loo jaay nu yu neelay muy cosaan la ñu foofu yéen bu leen bougé maître lii nii mënul ñàkk ndax tamit dañu ñëw ci dëkk buur yi te baax na fa tubaarkàlla macha allah ñu yëngu maam Kumba Caam macha allah macha allah lii moom mooy ngoyaan xam na ni démb tax ñu naan tey man ci démb rek laay dox lii su amul woon duma kontaan monsieur le maire xam nga lii lu mënul ñàkk foog mu ne ñu ngi ci mbirum euh, développement local ñuy wër ay exemple de réussite waaye sànq da nga ubbi volet bu am solo. di wax développement bi nga xam ne dafay jaar ci euh, lépp loo xam ne mbirum mbay la fa tabarakallah macha allah nañu sabari may tuuti nañu sabari may tuuti may leen ñu tuuti may leen ñu tuuti rek ñu yeggali dina dellu si di ngeen dellu si bu leen sori monsieur le maire développement local bi yow en tant que maire projet yi nga xamante ne am nga ko pour jeunes yi jeunes yaa ngi lay déglu projet yi nga xam ne am nga ko pour Gandiaye lan nga mu ci wax balaa ñuy dem ci micro trottoir. Euh, maa ngi leen di wax ne euh, euh, Sénégal. Mm. Euh, dañu am am dañu am chance. dëgg la. parce que dañu am population boo xam ne. Mm. ay xale lañ. Mm-hmm. je pense que danañ mun a avancé dëgg la te di leen wax dëgg. Mm-hmm. comme ni ko caat waxee. Mm-hmm. man dama yaakaar ne. Mm. bu ñu amee Sénégal li ñu fi am. ci ressources humaines. je pense que bu ñu ko exploité. Mhm. je crois que amul loo xam ne rek mënuñ fa yegg. dëgg la yi ñu réalisé bëri na am nga yoo dëxëñ. am nga yoo naal. waaye dama yaakaar ne. <laughs> Ah. Euh, actuellement. Mhm. yëkkati micro bi euh, tuuti dañuy wax ne mhm. moyen amul. dëgg la. c'est vrai que pour réaliser ay projet il faut beaucoup d'argent. dëgg la. mais quelquefois je pense que avec un peu plus d'imagination. je crois que am na yenn yenn yoo xam ne war nañ ko mën a régler. dëgg la je pense que euh, xale yi ñu nekk fi xale yi ak jigéen ñi. Mhm. parce que man dama yaakaar ne Sénégal. Mhm. pour defar ko. Mhm. jigéen ñi ak xale yi ñoo ko ñoo koy defar. dëgg la ñoom ñooy avenir bi. ñoo koy defar parce que euh, am nañu tout le potentiel qu'il faut. pour le faire euh, mais ñi leen encadrer. pour ñu encadrer leen mooy mooy moo moo xaw a des. dëgg la. parce que man yaakaar na ne man bu fekkee ne euh, dugal dañ dugal ci bopp xale yi ak nit ñi que pour réussir il faut nga am de grands projets aller dans des banques pour euh, ñu abal la xaalis non non mën nga démarrer lu tuuti des trucs comme ça mm-hmm. mais man wóor na ma ne mm-hmm. euh, et loolu laa jéem a inculquer aux jeunes qui sont ici mm-hmm. au niveau de Gandiaye moi je di que bu ñu seetee les ASC e, ASC yi ñoom seen activité yëpp ci affaire yi po mhm. affaire yi football mhm. ak football mun na quand même on lu bari lu bëri mais nag niñ koy jëlee fii ci dëkk bi mhm. ci Sénégal yaakaar naa ne du noonu football ak ak euh, fo or moi je dis que par exemple ASC yi boo seetee effort bi nga xam ne moom la commune bi leen def mhm, defal mhm, mhm. parce que chaque année danañ leen jox ay subvention bu ñu leen joxee subvention ba pare du tere ñu ut xaalis boo xam ne dañ leen ko jëndal ay coupe ak ay mayo jox leen ak ay mayo mais en contrepartie doo gis dara loo xam ne danañ ko dina ko jur dana ko jur pour ah, population dëgg la or damay wax toujours ne ASC bu ci nekk ci quartier bu mu nekk war na fa mun a def dara am projet projet bi. Mhm. parce que projet bi. Mhm. Euh, c'est vrai am projet. Mhm. d'abord il faut que ku ci nekk. li la war ci ci sa quartier nga def ko. parce que propreté. mais kooku mais mun nga pauvre. te set dëgg la. et donc euh, xale yi am nañ doole. <coughs> am nañ jot. donc je pense que ku ci nekk war nga mun a. quartier prise en charge sa quartier et puis quartier bu nekk. par exemple euh, ici au niveau de Gandiaye. yàlla may na ñu ñu am fi un projet. agro industriel. Mhm. benn projet benn ferme laitière. Mhm. ferme laitière bi. mooy béy yi ma dégg. voilà béy yi jógee bitim réew te war a def fromage. béy yi jógee. Euh, béy yooyu de suma ko gis. béy yi ñu ngi jóge woon Espagne. Mhm. di produire c' est des euh, c' est de la race Murcia. ki produisent trois a quatre litres de lait par jour. te béy bu ci nekk bu juree dana mën a jur quatre quatre produits. béy yi nekk fii. c' était pour Gandiaye. mais pour que waa Gandiaye. jóge seen kër. pour mm. dem rek xool béy yi. Mm-hmm. c'était tout un problème. Mm-hmm. bu ñu waxee ñu dugal seen bopp ne mm. béy yi la Gey moo ko moom. te loolu bitim réew lu lu bëri la mais ma ne béy yooyu bu fekkee ne man maa ko moom sax. Mm-hmm. te ma andi ko Gandiaye. waa loxo waa Gandiaye bu ci nekk waroon na ci loolu bu rëy la. bi nga xamee ne am nañ ay difficulté ba béy yi ñu jëlee leen fi. bi xale yi ñëwee. parce que am na un moment. le président Ablaye Wade di wax Goana. béy béy di ne dafa dañu bëgg ay créer ay ferme mm. mais bi mu koy wax boo fekkee na ñun ñu créer ferme mm. ferme yi sëñ Saliou de nee na béy et ay xale ay étudiants ñëw ne dañ bëgg ñu jox leen suuf pour ñu béy mm. may leen mais mais mais am ngeen fii fii am ngeen di hectares bu ngeen bëggee suba ñu ànd ma jox leen ko mm-hmm. ñu ne amuñ xaalis may mm-hmm. leen ku ci nekk mm-hmm. ci kër gi nga nekk sa yaay parce que femme yi ku ci nekk dañuy jënd ay béy ci ci àll ci ci di ko yar mais ma ne ku ci nekk boo demoon sa yaay nga laaj ko. ci mhm. famille bi mu mhm. jox la benn béy. Mhm. cinquante béy rek bu ñu ko defee ci ferme bi. cinquante béy yooyu. bu ñu ci defee benn béy bu góor en un an. mun nga multiplier par exemple les cinquante mun multiplier mais mais mais monsieur le le maire idée yi ma lay gis nii loolu laa gis par exemple en Europe. ci par exemple seen village li nga xam ne loolu la ñuy def ba suqaliku parce que ku visité Europe xam ne ne lii la ñuy def def ay euh, élevage sukkandiku ci ay par exemple béy yi nga wax jur fromage wala sukkandiku ci leneen jur coton j'ai l'impression que aussi est-ce que yow idée yi nga am euh, euh, avancé wul trop pour waa Gandiaye damay bañ sax waa Gandiaye sànni ma xeer mais est-ce que idée yi ñoom avancé wul trop gis nga je ne peux pas dire ah, avancé mais peut-être que politique moo yàq moo yàq parce que loo def rek ñu dugal ci politique mmh. et et ça vraiment ñu développer Sénégal avec comme ça mmh. boo jëlee beneen exemple mun mmh. naa joxee benn exemple en ce qui concerne par exemple les vergers les arbres fruitiers tool yi tool yi dama nekk dañuy ñëw ku ci nekk boo buggee am sa tool dana difficile mais les jeunes la dama leen ne ku ci nekk par exemple les ASC ku ci nekk ci kër nga nekk kër gu ci nekk ku ci nekk ci yéen da ngeen di ñëw ngeen wax ma ñaata ay yan arbre fruitier ngeen bëgg mm. il suffit simplement mm. bu ñu amee cent kër mm. te cent kër du dara ci dëkk bi mm-hmm. kër gu ci nekk bu amee dix choisir dix garab kii ñuy choisir mangue yi dañ jël ay mangue yi mm-hmm. boo jëlee dix mangue yi nga multiplier ko par par cent mm-hmm. ça fait mille mille mille mangue yi est-ce que gis ngeen fi verger boo xam ne am na 1000 manguiers. Hmm. donc dans le quartier boo amee 1000 manguiers en 4 ans. Hmm. mun nga produire. capital bu bëri la li ngay produire. dina dina romb puut. c'est ça le problème dina romb puut moom. et boo amee mangue. waaw waaw les mangue déglu <laughs> uh-huh. boo ko amee. Uh-huh. da nga ci lekk. Uh-huh. boo ci lekkee mun nga ci def. Euh, ay. Euh, confiture jus mun nga ci def jus. développement local. et tout ça c'est c'est c'est c'est des unités de transformation. docteur yoo xam ne par exemple dana leen mën a jëriñ. Mhm. te mun naa citer. n n projet n projet comme ça docteur taxawal foofu tuuti. encore une fois c'est des projets yoo xam ne ça ne nécessite pas. de beaucoup de moyens des taxawal foofu docteur. parce que waxtu yi ñu ngi ñuy dab te bëgg naa laaj euh, soxna Ñaaña fal groupement féminin yi parce que man ñii dañ ma itteel. dama bëgg xool jigéen ñu euh, fii naka la ñuy organiser woo naka la ñuy organiser woo ndax dañoo toog ci ay euh, euh, dajaloo xam ne am na ay projet wala lan lan lan ngeen xalaatal pour jigéenu Gandiaye yi waa kay soxna Degene maa ngi lay gërëm mm. comme ni ko alaaj bi waxee léegi li ñu gëmoon ñun mm. surtout man mm. dama liggéey dans le développement maa ngi nekkoon ministère di développement social mm-hmm. ma gis ni ñuy former groupement yi ni ñu leen di encadrer. Mm. bi ma fi ñëwee aussi noonu laa leen jàppale. projet développement local. Mm. comme ni ko suñu maire waxee léegi. il faut mm. d' compter sur ses propres forces. micro bi la waaw il faut compter sur ses propres forces. Mm-hmm. li nga amal sa bopp ci ngay démarrer. Mm-hmm. groupement yu bari. bi mm-hmm. groupement yi paase jur na ay jamra. yëpp a ngi fi. mais gisaguma. ku jógee fenn ñëw. ne groupement féminin bi wala jamra bi man maa leen may lii wala maa leen may laa mhm. ku ci nekk jamra boo gis am na ñoo xam ne ñu ngi tegg à peu près ay quatre cent mille cinq cent mille francs par mois ak mbaa doo leen ko def ci ay xew loolu xew wi na de déedéet ah, bàyyi ma ma yeggali rek dañ ma niw ay langkat de ñàkkul gaa ah, amatul loolu ndax loolu nag ah. taar la au Sénégal boo xam ne damay bañ liggéey ba pare xewee ko ci benn fan loolu xew wi loolu moom jógagu fi ah jógagu fi mu jógagu fi nag dañ koy def ba léegi am na fi duñ ne amu fi te mu am fi dañuy honnête am na fi mënta ñàkk dëgg la mais nag bu ngeen ko seetee man gaspillage bi xëy na gaa gaspillage am na mm. mais bu ngeen ko xoolee itam solidarité la mm-hmm. parce que boo xewlee da ngay teg mm-hmm. ñëpp ñëw ku nekk indil la mm-hmm. nga dajale loolu teralee waaye xanaa doo leen doo leen liggéey li ngeen liggéey yëpp xew def ko benn fan nee naa la ñu ci bari ay commerçante lañ tudd naa la léegi Mauritanie waaw tudd naa la Euh, kii yi naka la tuddati euh, Gambie. tudd naa la fu nekk te nee la dañuy jaaw jaawbe mhm. dañuy xëy di dem. bii mhm. su jeudi boo fi ñëwoon jeudi à huit heures nga gis leen ñu wàcc seen marchandise. dëgg la ñu ngeeg nettatu yi ñu ngeeg lépp dañuy jaay. dëgg la nii nga leen gisee ñu sañse boo leen fekkoon sur le chantier doo leen. xàmmee loolu doo leen xàmmee. Mhm. ku ci ñu ci bari ñi nga xam ne sax. xëy na amuñu jëkkër wala amuñu moyen boo mm. demee seen kër mm. fexe nañ ba defar seen kër ñu ngi suivre seen scolarité doom mm-hmm. ñu ngi leen di fayal ñu ngi leen di topp toppatoo mm-hmm, mm-hmm. kooku moom ci la yàqal moom xewi na jomp tuuti nag def ci ngénte yeeg ceet a ñàkk ah, ah, ah, alaaji joxal joxal ma alaaji joxal ma <laughs> waaye ni ma la wax rek li ñu démarré ñoom moo di groupement bu ñu réunion mm. dañuy seet ci seen biir ki nga xam ne moo fa gën a néew doole li mu mën par mois ñu adopté ko di ko teg teg boobu bu fulee ba ñu ko tegee ay pendant la première année mm. mu doon am petit capital ñu tas ko séddoo ko seen biir muy deux mille francs mm. par exemple ku nekk mm. weeroo bu dee nga indi deux mille deux cent mm-hmm. nee nañ araamul mais man araam na mais man dama naan araamul mm-hmm. parce que deux cent yooyu mm-hmm. day dugg si ci biir groupe bi membre yi bi mm. profité waat mm-hmm, mm-hmm. donc araam amu ci dëgg la man su ma la lebalee 2000 nga fay ma 2200 200 mm-hmm. yi araam mais maa yow bu ñu defee suñu kees bu ñu demee liggéeyi ku ci nekk la nga jël nga dolli tuuti ñoo def ci kees gi ñu bokk ko araamul ndax ñoo ko bokkaat dëgg la dëgg la moom la ñuy liggéeyee groupement yi daal noonu la ñuy yëngoo noonu la ñu déparé noonu la bu dañuy fixé bu cotisation jotee le 5 wala le 15 ñu daje mm. ku nekk indi mm. ñu teg jox kenn mu dem waaye waaye jigéen yee yor kër de tàccu leen seen bopp. waaw waaw ñooñu waxuma dara góor ñi nag waaye dégg naa léegi jigéen ñi yóbbu ah? ah, <laughs> ah. ñu de. ah bu ci kat jigéen ñee yor kër yi de <laughs> alaaji. waaw soxna déggan jigéen moom. mën a yor ko dañ koy yor. waaye ku ñu yorul koy defanteel jigéen ñi yor kër yi de. allah <laughs> ji léegi Euh, xam nga dëggan ah. dafa am lu may tontu monsieur le maire. Ah. wax na dëgg. ndeysaan. gis nga ak aji ñaaña. Mm. bari na ñoo xam ne ñi bu ñu farataloon fa ñu juddoo. Mm. foofu dam problème. ndeysaan. Olof Ndiaye dafa wax nag ni politique bi ci ëpp dangay ngay la borom muy oto ba paan ba mu tàkk mu dem bala fa. Mm. te dafa am yoo xay politique dafa war a dëkk bi nga dëkk juddoo fi war koo defar. jël leen politique teg feete jël aada ak cosaan par bu ëllëgee ku ñëw ci dëkk bi mën laa wekk bari na ñu nekk ci gouvernement bi am ndomb ak tànk bu ñu xamoon fa ñu dëkk duñ leen fal ndax defuñu fa lu jar fal wallaay wax dëgg la waxuñu fa jar fal jëppuñu ko fa dëgg la kon nit ku baax bu melee ni mel mm. am mandat ñaar ba ñett ba ñeent mm. dëkk bee ko safaay ba ko neexoon yem fa mu yem mm-hmm. Mm-hmm. yow nag bul déglu mm-hmm. ci réew mi nga dëkk te nëpp lu fi cër fi nga judd fi nga fekk baax say waajur daan nañ jëf lu baax ba nga juddoo fi ku ñëw fekk la ci ku dem na la ci baax mbooloo mii ma fekki say musu moo gis ci wareem déedéet musam fenn li la ko may nag mooy yëg leen koo tëral yilib ko koo yëgul mu fàtte la kenn du luwee nit de kenn du luwee nit sees ñi ma des li ma koy ñaareel mooy gars yi yàgg naa bari cadre waaye cadre yëpp bu ñu maloon ni Moussa maire gars njaay doon bari waaye mel ni waaw soxna ne nga dama wax ne toujours. Ah. ndax Yanda Kodo fi njëkk a way président de la république moo fi njëkk doon président la république. Mm-hmm. muy Léopold Sédar Senghor. dëgg la ba fi ni koy waxee. ndeysaan Gaye Ndiaye ci dëkkub xol la dëkk. Mm. muy Siin ak Saalum. Mm. kon cosaana ko fal. Mm. aadaa ko fal. waaye damaa bëgg jigéen ñi nga xam ñooy nag li nga xay ne comme nekk ko proposé sàng muy aji ñaaña. soxna dégg nga euh, gaspiller. ak ambiance ak noos daal bokkul. bokkuñu ñett ñett yi bokkul benn bokkul caat lan lan ambiance ambiance mooy waa sànni sa alal. Hmm. doo ko def foo ko war te def ngelaw la. wóor la amul ay képp bu ñëwee day wereku. boobu bëgguma ko amul place. Hmm. noos. Hmm. mooy seera ma tax. bu jeexee nga perte. gaspiller ci boppam. mooy dangay ngay gas fi nga xam ne soo liggéey boo ko soxlaa dem sulli mooy li mu wax alaaji gaspillé mooy gaspillé fi nga gaspillé mooy gas fi nga xam ne boo soxlaa sulli mooy gaspillé jërëjëf alaaji li ñuy def li ñuy def ani ani soxna Fatou Diouf heure yi ani soxna Fatou Diouf nañ ma ko joxal micro bi caat te na soxna dégg uh-huh. ma fi ab koo xam ne ki mook sama soxnaa bokk tur muy muy ndey ndey jaay àjjana ndey moom Cheikh Issa Diène di murid saadix ndeysaan damaa gis ni ma ba ma dem tàtli foogoon naay mukk mukk wareef du ñëw ndeysaan ndeysaan waaye dama leex toujours ni la soxna déggan ah. boo seetee seen toogaay bak seen yar bi ah. loola waaye mën a wax ci addina ndeysaan bala ngaa gis dëgg li ngir ñëwal siin dëgg la mbaa Saalum dëgg la bala ngaa bëgg a gis ku mën a liggéey lool ñëwal fii dëgg la bala ngaa gis ku mën a am traanga ñëwal fii <laughs> def na teraanga sax waa alaaj <laughs> Awa Gandiaye nga ngeen déggee loolu xam ne ndaanaan dugg si na fa tabakalla macha allah xam ngeen ni Baba Ngom kenn du ko laajte te ba mu yegsee xam ngeen ni yegsi na kon li ñuy defee dañ koy jox mu nuyoo ci li mu mënee Baba Ngom ñu ngi lay sargal ni la Sénégal yépp di sargalee di la nuyu nuyul askan bi <laughs> balaa Baba nuyoo nag dégg nga balaa Baba nuyoo may ma tuuti waaw xam nga dégg nga ku bàyyi la nga fal la la fal ci gàcc ngay dëkk dëgg la Baba Ngom dëkkul Ndakaaru dëkkul Cap Vert dëkkul Stade Iba Mar dëkkul Stade Demba Diop. waaye fexe na ba. Ah. yilif fi mu fekk baax jàng fi métier. loolu ñuy wax nag gàddaay. dem Sénégal fekk fa géwéli ndaanaan yi mu ne sa si seen biir tëgg fa lu kenn dul tëgg indi fa ay feem jigéen yu jógee la waa Njugo jëpp. bisimilah ñàkk foog mu ne lii moom dafa bokk ci cosaan bokk ci aada fatabakala macha allah maam Kumba xam nga ne pareegu ma ci yow dafa am micro trottoir boo xamante ne dañuy dem seetaan ko déglu ko nañu dem ànd seetaan micro trottoir bi déglu ko dellu si léegi léegi bu leen fàtte ne animation bi la ñuy tëjee ndax fii ne nee naa leen tey dañuy euh, gànjaay na doo paa Dakar la dafa animadoo dañuy gànjaay na doo paa tey nañ dem dellu si léegi léegi. <laughs> maa ngi yëngu ci restaurant ak boutique. waaw dox bu yem rek parce que ñun dañuy jéem rek xam nga toogaay bi neexul ak jaboot gi yëpp boo buggee toog xaar góor defal la ko du sotti soit du ko am wala ku mel ni ñun nga xam ne suñu jëkkër dafa wàññeeku su fekkoon nga toog benn place xam nga day gën a métti. mbéy mi soxal nañu trop vraiment bien vrai que ci électronique lay yëngu mais man polyvalent laa damay liggéey ci mbay mi liggéey ci électronique bi. te su sañoon vraiment mbéy mi ñu valoriser ko ba nga xamante ne nii ñu ci bëri dootuñ dem ji rajo rajo ci réewum ta am na ay GIE yu fi nekk waaw ay projet ak yëpp mais bariwul taxul mu yaatoo noonu daal ñi ci war a jot parce que jotuñ ci am na nag yu may dégg ay rumeur ci dëkk bi ak ki ma dendal Fatou Mbodj de léeg mu expliqué ma ay projet yooyu. suñu sañoon ñu toog suñu dëkk yaa ngi dégg si toutefois que vraiment euh, gouvernement jàppale woon ñu ci ay ay. ay va euh, euh, suñu suñu vallée yi yaa ngi dégg ñu bëri ñu ngi ñu dem Dakar mën nañ fee mbéy mbéyum noor yaa ngi dégg te su boobaa aussi dëkk bi day gën a naat. jërëjëf kon euh, mbokku téléspectateurs yi gis ngeen micro bi ñu def waaye tamit. gis ngeen animation bi nee naa dañ ñëw tey ci dëkku cosaan fatubakalla macha allah bëggoon naa euh, Fat Diouf Eri euh, nga wax ñu tuuti yow en tant que femme nan nga gisee développement dëkk bi bisimila yëkkati sa micro bu baax a baax Diouf yow yaay borom dëkk bi de dañu ne ki ko sant Diouf la sant bisimila <laughs> jërëjëf Adja Béguen mm. ginnaaw bañ sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen ay gërëm di leen ay sant. may leen ñu tuuti may leen rek ñu pare di rafetlu teewaay bi. ndeysaan kontaan ci dérangement bi ak déplacement bi ngeen jëlee dakaar ba yegg si fii ci Gandiaye. jaral ngeen ñu ko. te fii nga toog tey ji mooy xay jàkkaarloo bi nga xam ne ko fi falu fii lañ la fale. fii nii fii nii ci xay jàkkaarloo waaw fal leen ma waay tamit nag. waaw yéen ma waay. di noyu euh, monsieur le maire de la commune de Gandiaye wax nañ léegi histoire bu Gandiaye bala may ñëw tuuti ci développement ma mos ci tuuti ñëwal ñëwal ñëwal wax nañ léegi ci histoire bu Gandiaye mm. histoire bu Gandiaye monsieur le maire de Gandiaye dina ci bokk mm-hmm. ndax ëllëg suñu doom yi mm-hmm. danañ leen posé mm-hmm. danañ leen jox ay histoire yoo xam ne dañ leen naan mm. qui était le premier maire de la commune de Gandiaye dëgg la l'histoire retiendra bon danañ mën a wax ne docteur El Hadji la il est le premier maire de la commune de Gandiaye. waaye tëggal leen ma lii waay. waaw. li neex na waaw ñu demaat ci. waaw. waaw baax na demal. ñu waxaat ne mënul yàq. ñu waxaat ne. qui est le deuxième maire. de la commune de Gandia ñu ne c'est le docteur El Hadji Guèye docteur deuxième maire le troisième maire ñu ne c'est le docteur El Hadji Guèye waay Alaaji bankal lii waay macha allah kon xam nga ne waaw El Hadji waaw dëkk bi jëppi wuñu ko déedéet te ba xamal la leen mhm. El dafa ànd ak équipe boo xam ne mhm. équipe booba politique intéressé wut leen. dëgg la développement Gandiaye moo leen. intéressé dëgg la dëgg la macha moo ñu ñor. dëgg la dëgg la. ñun jigéenu Gandiaye nag. Mm. comme ni ko présidente waxee. gàcce ngalaama. jigéen ñi. Mm. ñu ci marché bi. dëgg la ñu ngi ñu ngi ñu ci oto yi. dëgg la luuma bu jotee ñun ñëpp dañuy takk suñ digg dëgg la ñu ci jamra yi. dëgg la. kër goo yegg tey lafa nekk jigéen a ko def la lool loolu la ñaaña wax léegi waaw dëgg la ñu ngi jamra jamra boo teggi tey visé nga projet boo xam ne di nga ci mën a jàppale sa doom jàppale ci sa bopp dëgg la suñu doom yi nekk fii tey te nekk université tey mm. dañ leen fa jëlal appartement boo xam ne mairie Gandiaye koy fay rien ko pour jàppale suñu ah, njaboot loolu baax na mairie Gandiaye loolu baax na na ajaa dégg ngeen lépp a ngi fi dëgg la cosaanu gànjaay mm. mënuñu ko wax bee mu jeex dëgg la juuf tey jii bu ñu defee tey jii miss bi monsieur le maire wax fii léegi mm. ñun jigéen ji dañuy ànd ak suñuy gàmb mm. ak suñuy leket takaayu uutali kër buur gànjaay waaye muy Ibou Mbow waaye yow loolu su amatee ngeen wax ñu ko ñu ñëw filmé waaw lii programme dañuy joge ci xay bi dem buntu kër Ibou Mbodj dëgg la loolu yëpp ci cosaan la jërëjëf jërëjëf Diouf kontaan nañu ma xamal la nag ne développement Gandiaye moom jigéen ñi ñëpp a ngi ci dëgg la ñun ñëpp ñu ngi ci dëgg la fas yéene taxaw takaayu jëmale Gandiaye kanam jërëjëf jërëjëf jërëjëf dernier tour de table bi nga xamante ne ne moo ñu dese bëggoon naa fa tabakalla macha allah ñu jox euh, kii nga xamante ne euh, moo di euh, Katim Touré defe naa ni sànq maa ngi ko doon laaj waaye mujjwul yegg si macha allah macha allah nañ ma joxal micro bi Euh, waaw le jeune waaw bisimilah. asalaamaaleykum Tara ci lu gàtt. waaw ñu ngi sant bu baax. ñu ngi lay euh, gërëm ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal yàlla. ndeysaan di wax ne ñun euh, dañu am chance. Mhm. daje ku mel ni docteur El Hadj Guèye. Mhm. parce que bu fekkee ne ñun ci dëkk bi lañ juddoo yaroo ci dëkk bi màgg ci dëkk bi. Mhm. kenn du bëgg fa nga dëkk. dellu gannaaw dëgg la. te wax dëgg yàlla gis nañ ne bañ àndeek moom mhm. gis nañ ne jëmale na dëkk bi kanam dëgg la kon ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla dimbale ba fa mu bëgg a jëmale dëkk mu jëmale amiin wax ne euh, mu ngi yëngu ci côté bu nekk mhm. saa su ne parce que ñun ñooy bras droit am ñun ñooy bras technique am ñu ngi liggéey ak moom dëgg dañuy am ay projet yoo xam dañuy wax ko mhm. mais dafay bëgg projet boobu kut ko kut mu réaliser ko dëgg la même ce matin ce matin rek ñu ngi waxtaan ci ay projets yoo xamante ne pour le développement de Gandiaye dafa ma ne lii su ne am ren ren ci kàttanu yàlla ci 2014 donc vraiment ñu ngi euh, ñoo nekk ci wax léegi ah. euh, Ali mi nga xam ne vraiment moom léppam la ah. ak euh, les les deux adjoints au maire yi nga xam ñoo nekk ci mais est-ce que am na équipe football yu a yooyu ani jeunes yi ah bien sûr l'ASC Penc mu ngi moo jël coupe du maire l'ASC Penc mu ngi moo jël coupe du maire ASC yu brave yu grave ak grave xam ne fii daal xale yi ay nañu kon vraiment ñu ngi remercier bu baax euh, di ñaan euh, maire développement bi ci dëkk bi jërëjëf li ñuy def euh, mooy def benn dernier tour de table balaa équipe bu Babou Ngom di ñëwaat ak soxna Mame Coumba Thiam monsieur le maire bëggoon naa waaw may leen ñu may leen ñu tuuti rek waaw kay nii la bëggoon naa xam ban dernier message ci lu gàtt rek waxtu yu dab nañu dernier message bi nga xam ne moom ngay lancé population de Gandiaye ci lu gàtt rek. oui bëggoon remercier euh, l'équipe municipale. Mm-hmm. franchement euh, bi nous sommes. Euh, <coughs> macha allah macha allah. 46 conseillers. Mm-hmm. Euh, je peux que le parti socialiste a 24 mm-hmm. conseillers. macha allah donc normalement est, parti. le reste, c'est entre l'AFP, c'est entre l'ALD, c'est entre FDP ak euh, PDS. ñëpp bokk bëgg-bëgg daal. mais je vous assure que euh, dans notre conseil municipal. Mhm. boo fa duggee doo xam ki ci ban parti ñëpp bokk bëgg-bëgg ñun ñëpp ñoo ànd jërëjëf ñu gàttal waxtu wi dab nañu donc yàlla may ñu vraiment ñu ñu déggoo di di ànd jërëjëf jërëjëf li ma li may ñaan nag dëgg la mooy que dëkk bi ñun ñoo ko moom mhm. moom c'est-à-dire ñun ñoo ko bokk waxtu wi dab nañu alors li may ñaan rek mhm. mooy que ànd bi yàgg jërëjëf et que ku ci nekk fi nga nekk nga liggéey pour que Gandiaye mën a dem kanam jërëjëf jërëjëf monsieur Guèye ngay tàggoo askan wi soxna yaa ngi lay déglu xamal ni nag yow sa tâche dafa difficile parce que jigéen yëpp dañ toog jox la seen baat kon lan ngay tàggoo ci gàtt loo xam ne ñoom ñëpp dinañ ci gis seen bopp yëkkatil sa micro di leen ñaanal rek ak di leen ñaax ne fi ñu nekk rek ak ni ñuy doxalee noonu la gis naa seen liggéey gis naa seen takkute gis naa seen i jëfin mm. lu baax la mm. nañ ci continuer mm. ñu dimbale ñu nag bu ñu déggee fii vraiment bu ñu amee ñu mun a jàppale jigéen ñi mun leen a yokk mun leen a defal formation mun leen a jox financement vraiment ñu ngi toog di leen déglu femme ya damay ragal ni su wareef bi passé di ngeen bëri ñun xëy na suñu wàllu wéy na waaye xale yaa ngi fi jéeg ju ndaw jaa ngi fi ñu ngi taxaw ñu ngi takku bëgg lu ah, baax ah, ah. kon nag ku leen jàppale ñu dem jërëjëf caat caat <laughs> xanaa taa dégg naa tàggu waa Gandiaye rek waaw tàggu tamit maam ku ma jugal ak sa équipe ngeen taxaw ne baabu taxawee ne wax naa dañuy def Gandiaye na door pa alaaji waaw man déggan damay gën a gërëmaat rek maire mhm. te am na kàddu gu wax goo xam moom laa àndal mhm. dama ni politique ci biti la yam waaye. soxna ñaaña dikkul ci biir kër. damay faral di wax ni ni la. Mhm. parti bu waaye mën a nekk. Mhm. Sénégal benn du ñaari parti dëgg la. Macky sàll moom la yàlla jiital waaye moom réew mi fii lañ juddoo yaroon. Mhm. kenn ku ne na doon président Macky sàll kenn ku ne na doon Alaaji Gaye meeru Gaye Njaay. boo fa nekkee di nga liggéey. dëgg la politique nag bu dee dëgg ci yow fi nga fekk baax te bëgg ëllëg mu yokk fa ngay fekk baax. jëf fa baax jëmbat fa baax ba liggéey loo fa jëf yàlla mën na koo def jàmm dëgg la kon ñu ngi gërëm waa Gaye Ndiaye gépp di leen ñaanal jàmm di ñaan allah ji géy di ñaanal it yaay dorin mhm. mi nga xam ne fii la fekk baax nu ànd ak moom mhm. ak équipe bépp di ñaan yàlla def fi jàmm def ko jàmm ci réew mi kontaan nañ ci yéen baabu nag ngoom yàlla na la yàlla defal jàmm amiin yàlla na la yàlla gën a yëkkati mhm. lii nga def ba ko bàyyi ñu ne dara ñëpp say rek la ñoo say doom dégg naa biig ñu ni ba neexoon dëkk Ndakaaru waaye da ngay famille nga oof say rakk nga oof oof nga say ndey oof say tante loo mi di gay njaay jërëjëf dama wax ni la ginaar ah. ni dongo yi toll boo ko saa doon ooret du weesu kes dëgg la dëgg la jëf alaaji balaa ñuy ñëw léegi bàyyi nag tuuti animation dañuy àndaat ak yéen ñi ñuy seetaan ci réew mi ak ci bitim réew ziyaarat kilifa diine di sàkku ci ñoom ñaan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 liñ ci namm mooy jaale képp koo xam ne jamono ji ñu toog di waxtaan mel ni fekkee nañu mel ni tal nañu ñoom ñu ngi ci tiis nekk ci naqar waaye nangu dogalu suñu borom bi ndax àddina du kër seen émission bii di wareef nag mi ngi ñëwoon gànjaay may remercier bu baax a baax Rama Diallo ma nekk ca États-Unis mi nga xam ne moo ma habillé tey dentelle bi waaye tamit Waline Fall la reine du chapeau et du foulard anim maam Koumba ak Babou Ngom kon na biir ko boobu waay waa xale yi nuyu naa leen te dugu ba nooy xam nga sama way wee jigéen ñee ko moomoy xale yi nuyu naa leen ka digee bagaay e waa nde dindi gooy dindi kee baay waa xale ka jaay yaa gee baagaru leen